tey dañ koy tere ci réew mi léegi nag man gars yi li ma naqari ba naqari mooy nan ngeen mën a imaginer euh, xaaral ma ñëw kii moom du sensé ma ne ko taala moom du sensé lii taala moom ku teppi data ndayam la kii moom du sensé ci àddunaam mais buñ la jàppee xam nga Tiwaawan la nekkoon te li ngeen ci xamul mooy taala mi ah papaam imaam la de imaam bu mag la gis nga papay taala bu dajeeg taala day daw day làqatu papam imaam la imaam la fi mu toll nii magu taala sax moom moo yor daara ji léegi papam dafa jàng ba ne kar imaam la papam imaam la de bàyyu taala imaam la de mais xoolal doom ji xoolal doom ji te baayam imaam la baayam imaam la xoolal doom ji xoolal doom ji papaam imaam la de imaam bu mag la bàyyu taala mii imaam bu mag la te xoolal doom ji puus day képp kuy puus day ñu lay défendre bu ma la fa fekkee teppi sa data nday léegi xam nga la laa munta imaginer li ma munta imaginer mooy Dior Dieye mii joor Dieye mii nekk Paris lan moo tax fekku leen ko Paris toj cottu ndeyam kuy défendre góor jigéen doo ko fa fekk xar data ndeyam Dior dafay génnoon mu ne aadama lay kaa parce que aadama day weer jigéen ñi Adamo ne arrêté na jigéen ñi moo ngi moo ngi ci góor jigéen ñi exemple ah moom mu dem ci góor jigéen ñi da leen dooleel. mais léegi kii kii moom lan la bëgg ci àddunaam àddunaam lan la bëgg laa xamul joor Dieye mii caga bu katt ndeyam bu bari bii lan la toj cottu ndeyam bëgg. yéen ñi nekk Paris du ngeen ko fa fekk Dakar ndeyam mais joor caga bu katt ndeyam bi lu mu bëgg gaay maanaam moom lan mooy problème am loolu laa mënut a bu ndayam naan waaw Adamo day xeex jigéen ñi day troxol buy wax nag day mel ne yaayam muumaaka kattoon yaa ngi dégg ñun dotom ñooñu dafa mel ne ñoo kattoon yaayam mu jaaree ci tuun gi génn ndax joor boo ko xoolee ak ak ak golo benn lan xool li bu waxee naan waaw Adamo day trox xam si moo xamal léegi nag Adamo ne bàyyi na kaa yi ah, maanaam arrêté na ko pour jigéen ñi parce que rek leneen ah moom moom di di xeex góor jigéen mu dem ca góor jigéen ña lan la bëgg kii kan lay défendre joor mii kan la mën a défendre léegi ma nga ca góor jigéen ya yéen ñëpp gis ngeen ko laay fa am soo gis ngeen lam fa kàddu yam fa doon yëkkati eh bu leen dama gisu leen ko de yéen ñëpp gis ngeen ko laay fa am soo sosoo te gis ngeen kàddu yim doon yëkkati ak li mu doon wax bu leen nekk ay naafiq damaa bëgg ngeen wax dëgg man xeex bi man man maa ciy sonn parce que man maay teg seeni photo maay daqaar seen ndey parce que man ragaluma ci réew mi laa dëkk yéen comme que yàlla mayu leen ay kayit yu baax dëkku leen ci réew mi amu leen ay kayit yu baax li ngeen mën mooy ñëw ànd ak man wala ngeen jàpp ñu mel ne ñuy kat seen ndey leneen li ci def nag muy ay plainte muy ay góor jigéen yu kéeg yooyu yëpp man naa koo gérer ci réew mi laa dëkk li ngeen ma mën a jàppale yéen lool kese la man ci réew mi laa dëkk wax naa leen ko ragaluma man awma lu may tiit awma lu may ragal man téetuma mais lan mooy ndayu di nekk ci laay fu góor jigéen di kat sa nday naan dañ leen di défendre lan mooy ndayu génn ci laay fu góor jigéen di leen défendre défendre nga fi jigéen ñu ne teg nañ jigéen yi à côté nga ñëw nga ne góor jigéen yi ngay défendre. ma gis man man génn wax ne maa ngi support góor jigéen danga dégg génneel vidéo bu wax ne man taxaw naa ne man maa ngi ànd naa ak lii wala wax naa ak lii yow doo nitu dara yow xam la sax xam goloy te àll ba maa mbaami te àll ya lii boo ko déggee xam ne commencé noonu ruux yaa ngi dégg parce que man du ma ragal commencé noonu ruux saa bu ngeen may jàppale dangeen ngeen may jàppale ci lu logique man bëgguma ko foo. bëgguma bu aadama taalee live am rek ngeen dugg kattal sa ndey sa data ndey na ku nekk taal live di live chaque jour di katt ndeyu góor jigéen yi yéen lan la wala bu ngeen mënul loolu maasug joor yi fu ngeen leen fekk Dakar ndeyam ak ñeneen ñu leen di dooleel man ngeen bàyyi ma ak ponkal yi loolu du problème mais il faut ngeen def dara pelente damay ruy ndeyam dama koy naan góor jigéen bu ma pelente pelente bi laay ji roof ko sama taar yu doxat ndeyam mu dem siin sa waay li ngeen ma mën a jàppale du loolu man ragal du ànd man man du ragal ci mi laa dëkk du ragal tàppituma eh am na ñu woo ban woo ma mais xeex ji góor jigéen ci jaamu yàlla la bokk l'islam moo ko njëkk a bañ xam nga eh gaa yaa ngi naan waaw ñàngam nangam yàlla nee na déedéet safara ñii seen àtte safara la direct xadis lañ ko wax alxuraan ñu bëri na naan alxuraan góor jigéen ñëw na fa lu bëri déedéet alxuraan sax tudduñu ko xadis lañ ko teg safara direct dama ne la ñii safara dëgg direct yonent bee ko wax joor Georgie yii moom ngeen fekkoon ci live bi tey ak ñeneen ñu mel na joor yi no seen photo yi dama leen a fàttee effacé fii dama leen a fàttee envoyé fii euh, Amzo Zozo ana am non non ñu ngi nii kii ñi ci ñu doon défendre góor jigéen ñi la bokk kii man nag xaw ma seen tur yi photo yi leen ma yónnee rek ne ma daree défendre góor jigéen ñi yéen a nekkoon ci live bi ñii fu ngeen leen fekk du ngeen tebbi seen data ndey fu ngeen fekk ñu mel nii. su bëgg naa amoon doom ju góor danañ bëgg mu doon góor jigéen ak lëf ni mu neexee data ni mu safee nga bàyyi fa data di puusi day yow imaginer nga koddal tey jël sa koy bi roof ko ci tuun génnee ndeyam mu tax ak ay day lan ngay imaginer sarab nday loolu waay merci beaucoup rëbb leelu mooy lan ñii di défendre góor jigéen fu ngeen leen fekk da ngeen war a xar seen data nday nan waxante dëgg ñii ñii ñëpp dégg naa ay góor jigéen yi la ñuy ñii ñëpp dañuy katt ndeyam di défendre ay góor jigéen ci live bi leen duggoon di leen défendre mais xaral seen data ndey ñoom ñëpp toj leen seen lafal ndey bu ngeen leen gisee katt seen ndey loolu mooy wax bi waaw ñi ñëpp ñii ñëpp dégg naa góor jigéen yi lañ doon défendre ñii ñëpp ñii ñëpp dégg naa góor jigéen yi lañuy défendre toj leen seen data ndey ñoom ñëpp daqaaral seen ndey bu ngeen leen fekkee ci live ñoom ñépp lay kat seen ndey nag ñii ñépp ci lan bokk ñii ñépp gis ngeen ko nii ñii ñépp dañuy défendre góor jigéen tout pare ñii ñépp ñii ñépp ñii ñépp tout ñépp ay défendre góor jigéen xoolal kii mag mu ñàkk fayda mi ne day defandir góor jigéen mais xoolal ni nga mel seen leex yu gonfale ngay mel ne arbitre bu retraité meer xoolal sa kanam gi comme bàmmeelu nag sa bakkan bi gis nga ko ni mu toll comme r bu gaaree yow pain wala bu 400 benn ngeen lii ponkal yu kat seen ndey yi nga xam ne seen boo leen dee kat genre yi boo leen dee kat pour nga dugal sa koy bi sax problème la xam nga lu tax parce que seen data yi pour nga gis ko dangay jeex ba sonn ndax bari yàpp rek ñii bu ñu génn seen kër duñ jaar ci buntu normal bi déedéet garage su oto bi leen di jaar nga ne da ngay défendre jigéen yéen a tepp seen data nday ñii ñoo teb bi data nday waaye ok ma ñëwaat ci Omzo Omzo Zozo ci biir waxam dégg naa ko tey nee na day jël ganaar boole ko nit en semaine ñu rey la nga de Omzo man sama maam Elzo man sama maam ay xàmbu la yoroon di faj ay rab man boo ma gisee sama bopp ndaw bii rek ngay xam ne aadama du nitu kese man bu may xoolee damay wiiri wiiri rek sama ñaari bët yi benn tolloowul rek sa morom gis nga ko su ma xoolee sama peru ñaari bët bi bii nii la jëm bii ñii la dem damaa fees dell ak ay jinne nee naa la 35 jinne laa yore xoolal eh bu ci dem voyage boo ñëwaatee leneen nga may wax am soo man liggéey ma du noonu de déedéet ñu bari jëm nañ fii moo géet yónnee na yónnee na nit. mu dem suulal ma liggéey ci géej yónnee na nit mu jox benn benn liggéey jësit dem ci taatu groupe samp na fa moo géet ndax maa ko fay ba jamono ji nii moo la ëpp xaalis doon milliardaire su ma mënoon a rey dee naa def na lu ne maa ngi nii toog dama ne la oustaz bi fi génnoon barki dee mu ne day yóbbu sama koy xam naa boo demee koyu papam moom naw na bu yàgg samay koy ngi ma téye di koddal bu baax am na keneen ku fi génnoon ci émission bu su ngoonee ne damay soppi ganaar ngi nii doon nit di toj seen dëdëm ñoom ñëpp am soo man liggéey ma noonu déedéet ku la ko wax day sëriñ bu ne la mën na maa liggéey day toj cottu ndayam te boo ma dee liggéey boo demee ca sëriñ ba boo ko joxee sama tur ne xoolal ma aadama mu xoolal la wax la kii mooy kan ak fan la bokk bala nga maa liggéey di sa cottu nday comprendre man du ma ragal am soo ci dëkk bi laa dëkk ah, ah doomu séeréer laa tiituma du ma ragal xeex goo jigéen ti jaamu yàlla la bokk awma lu may tiit sama àdduna déedéet ragaluma de ah ah man lu ne ragal naa ko yàlla rek moo mën ci man dara laa jàpp si ne ma jàpp mais bu dee ay liggéey ay yóbbu ci sëriñ non non yooyu man yooyu mënumaa jàpp wax dëgg yàlla yooyu moom je m'en bats yooyu moom wax dëgg yàlla man jàpp ma quoi loolu mënumaa man man Boss Day Negri waaw le reste nag moo ko man loolu waaw leer na puus day dañ ko fi tere ci réew mi fii mbaa leer na ok eh Mia yow defal ndànk bala